occasion pour mën a gàmmu ma ne tàntal yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa bu ñu waxut tamit tànt moom mu ngi wax mbooloo mi sol seen yére yi gën a rafet ñëw teew ci mbëggeel ñëw teew ci dal ñii téye seen kurus di jàng salaatul faatihi li maa xuliqa loolu ku ci fanaan tamit yaa ngi ci gàmmu dafa fekk ne rek ne eh, am mbool nit mënta ñàkk communiqué moo tax bu mbooloo mi teewee faw mu am ñu jël kàddu da nga dee waxtaan yóbbaale ñëpp waaye gàmmu gi moom lañ ca bëggoon am nañ ko ci alhamdulilah ay conférence am na fi euh, Seydi Mouhamadou si Cissé waroon na fee def waxtaan waaye yónni na fi doomam Cheikh Ibrahim alwala bi sirru abihi te def na fi waxtaan woo xam ne waxtaan wu yéeme la kala aadati yal na yàlla dimbale leen te yal na yàlla fay leen li ci des rek kàddu goo xam ne la kàddoog ngërmaane la waaye gàmmu gi moom dama koy leb déwén bu ko defee nag loolu moom maa ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo amee programme bi Miftahoul Wousoul foog naa ne ci gàmmu kii bàyyi moo Gueye bi ca fële géejawaay la géejawaay sëñ Ousmane am na cax bu mu leen cax kon méthode bi foog ñu soppi ko foog tamit ñuy xaj-xajal wala ñuy jox temps bu yaatu ñu mën a waxtaan ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ko xam bu baax zahiran wa batinan am na ñoo xam ne heure bu nekk ñu ngi dund ci yonent bi waaye nag jàngaleeg yonent bi ci làmbin ak ci jëmm ak ci teewaay daf ñoo war ñun taalibi Mawlana Cheikh Ibrahima yi ndax bàyyi bu gutoon ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa loolu nag moo tax la daan bàyyi daan def leen fexe ñu gën a dundal sunna soosu moo tax nag maa ngi leen ñuy proposé bu gàmmu gi amatee waxtaan yi moom leen ko tàmbale diggante une ba trois heures et demi buñ baree nag ñiñ ko tuddee ñu ci war a waxaat ak ci war a nangam ak nangam ak nangam waxee ba fajar ñu julli bu ko defee continuer dégg nga zikar si bu ñu xoolee na bàyyi Baye méthode gàmmu gi noonu la dañuy teel a waxtaan waxtaan yi bu buñ demee ba boori fajar gars yi commencé zikkar si xalifa bi lettre ba muy bind heure boobu la koy bind ñemi gërëm heure boobu la lañuy dégg nga da gërëm kon nag bu buñ mënee soppee noonu ñun dina doon loo xam ne lu baax la euh, ndax caméra yi nga xam ne ñoo koy jël télévision yi nga xam ne ñooy ñëw dañuy soxla tamit ay mawaati ilmiya yoo xam ne dinañ ko mën a jàllale ku bokkul ci mbooloo mi xam ne lii moom mooy risaala da nga dem mbooloo mi foog naa ne nag ah sëñ mu ngi koy jaxe waaye nag cax bi dama bëgg nag mbokki taalibe yi ni ngeen ko dégg gën a organiser loolu doon na loo xam ne lu am solo la waaye nag ñu ngi sant yàlla ci yokkute bi nga xam ne yàlla ñu koy wan ci xadara bi ci miftaaxul wusul ila xadaratu rasul ci njiit bu baax bi di bàyyi Ousmane da nga jàng ñu ngi koy santale yàlla ci lii dañoo ñëw pour sant la ko yàlla ndax euh, nit bu fekkee ne da nekk ci lef wéeru ci ki nga wéeru xam ci ki nga wéeru kan la xam ne keppaaram am na barke xam ne par keppaaram xam-xamang fa keppaaram mëdët mang fa keppaaram mbóotang fa ndax bàyyi moo ko moo samp loolu te bàyyi lu mu samp rek loolu barke la wéeru ci Mawlaay Cheikh Hassan Deme bëgg ko mbëggeel goo xam ne mbëggeel gu wér la di liggéey ci toolam boobu wala ci waar bi nga xam ne moom la ko bàyyi bàyyi woon ci faydu bi wax dëgg yàlla nga dem lu mat ñaar fukki at lu teg ak lu teg yurduwaat liggéey boobu ñañ doon defar ana nuñ mel nga ñëw ci tey jii nii nga xam ne kenn moo ci aye te ñu bari leen waaye kii moom bés bi tey mooy bàyyi amado Dingare Camara tey ku ñëw fii nii di nga xam ne ki ko yar wax dëgg yàlla am na ndigal am na mbóot am na wiraasa dégg nga ci sëriñam am na tamit dégg nga mëdët ndax ñëpp xam ne ne ba muy ñëw ci moom boobu ab turé laa amee woon di maçon ji mu téye ko defar ko ba mu nekk ab sëriñ boo xam ne tey mu ngi yare waaye tamit mu ngi def lu baax loo xam ne ku ñëw fii nii siggi nga ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy liggéey moo naan Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ndax liggéey rek doy na rek nga xam xam la xam la nit ñi kan moom mooy bàyyi te wax dëgg yàlla jaxaay foog naa ne kenn réewutu fi Mawlaay Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ñëpp xam leen ko te loolu ci liggéeyam boo xam ne la liggéey bu rafet la kon ku ñëw fii tey di nga ndokkeelaat sëñ Ousmane beneen ndokkelin waaye ñaanal la yàlla tamit yàlla na la yàlla may wér te yàlla yàlla yàggal la fi lool àggale sa mébét àggale sa yaakaar say ñaan tamit yàlla na ko yàlla dëggal dënga de say taalibe maa ngi ndokkeel nag Amadou Baye Amadou ci itte ju rëy jii nii nit ñi ci itte rek lañuy lañ rawante yàlla moom dafa am ay mbiram yoo xam ne daf ko samp ci àddina bi loolu du soppeeku mu jant bi kenn mënta fekk fexe ba nga xam ne ni ko yàlla programmé na ci soow ci penk bi lay fenkee ci soow bi lay sooyee kenn mënta dégg soppi loolu waaye yi nga xam ne nag moom doomu aadama bu góorgóorloo mën koo am su fekkee ci wàll martaba la buntam nu bu wotu yàlla tëj na ko foofu moom nekk fa naan yàlla def ma ab yonantu wallaahi bu la ko xut bu zaman ñaanal woon sax <laughs> doo doo doo jot jeex na jeex na ab yonantu mënta am gannaaw yonent yàlla ma salaa salaam waaye gannaaw gi ci wilaaya lu ci waay góorgóor rek yàlla jox ko kem loolu tamit ci itteewoo lu rëy ku ko def rek yàlla yàlla yàlla yàlla dimbale la ci parce que taalibe warta ragal taalibe warut a ragal ku am yàlla looy ragal waroo ragal dara waroo am benn complexe war nga mën a taxawal penc mi yëpp àddina bi yëpp dajee fa ngeen leen kii moom mooy sama sëriñ waaw na fa ku nekk ñëw président àddina bi yëpp leen leen leen leen dajee te loolu seet naa ko seetlu naa ko ci yow maa ngi lay gërëm ci loolu maa ngi lay sant ci loolu waaw dafa doon loo xam ne lu am solo la ci ab taalibe parce que am na taalibe boo xam ne day ànd ak sëriñam fekk boobu ba muy ñëw ci moom ñaar dërëm mënu ko am ay yére yu xotteeku nga ñëwee ci sa sëriñ ay jafe-jafe nga fa ñëwee kiiraay yoo xam ne nag kenn xamul fu mu yem mu téye la defar la di la omat ba nga màgg rek commencé yëg sa bopp foog ne nag mbubb bi nga xam ne yaa ngi ko gis mbubb ak teraanga bi ëpp na sëb sëriñ nga bëgg koo solal keneen soo ko defee yàqu ku ko def yàqule waaye nag ni ma gisee ngay defe maa ngi lay ñaanal yàlla la yàlla gën a saxal ci loolu kii mbootam yëpp loolu la moom Cheikh Hassan dem rek parce que iltifaat baaxul ci taalibe koo gis mu lay jéem a yóbbu ci jàppal fii xoolal fii xoolal fële ma ngi lay tardeel rek ndax fa ngay xool yow foofu nga jógee ko fi nga bàyyee ko foofu nga jëm kon kay fa nga fa nga fa la yàlla programme nga toog foofu noonu may yi di ñëw looy soxlaa leneen des fois nit di wax ne soxlawuma ci kenn dara ci sama sëriñ rek laa soxla dara loolu moom mooy dëgg wax ba nga ko waxee xasoo beneen sëriñ ndax taalibe bu melul noonu ci sëriñam doo jëriñu saali taalibe boo xam ne ay place yu bëri la la gaa yi am ci sa xol bi wallahi dara du nekk ci yow Thierno dinaa la wax ne ku bëri fooy fooy simmi dàll kenn du la simmil dàll yaakaar naa baat boobu yàgg ngeen ko dégg seen dàll seen dàll yi bu leen di ko simmi fu nekk buntu kër gu nekk ngeen simmi ko fa ku koy def kenn du la simmil da nga a dàll ilzam baaban waaxidan tuftax lakal abwaab benn bunt ngay taqoo benn sëriñ ngay am nga dëggu ak moom jëmmal ci moom Cheikh Ibrahima jëmmal ci moom Cheikhu Tidiane Chérif radiallahu anhu di yëg ci moom li ngay yëg ci bàyyi su ko defee rek may yi da nga ñëw noonu la yàlla di defee ak jaamam yi loolu nag alhamdulillah seetlu naa ko euh, xam naa ko tamit ci euh, Baye Amadou Camara mi ni nga xam ne noon la gëmee sëriñam noonu la bëggee sëriñam bi qadri ma tuhibbuhu tanaalu amdaadahu fal qawmu hada qaalu loolu la bàyyi wax radiallahu anhu ci kem bëggee rek ci la lay yàlla di tëbbale te bëgg nga sa sëriñ mbëggeel gi yàlla na ko yàlla yokk dëggu gi yàlla ko yàlla yokk sa teraanga yàlla na ko yàlla yokk bëgg-bëggam ci yow tamit yàlla ko yàlla def def ko ci mboolem taalibe yi yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ñu ngi kontaan bépp teraanga boo ko defal nag ñun njabooti Cheikh Hassane Deme nga ko defal bépp teraanga boo ko defal rek ñun nga ko defal sëñ Ousmane ku ko jox mbubb ñun nga solal sëñ Ousmane ku ko jox oto ñun nga jox oto sëñ Ousmane ku ko jox avion ñun nga jox avion sëñ Ousmane ku ko tabaxal ay palais ñun nga ko ñun ñun nga ko tabaxal ndax moom boo ko xoolee mënoo gis ku may Cheikh Hassan Deme radiyallahu anhu te ñun Thierno Hassan dem moom la ñuy tiitaroo ndax moom mooy suñu séddu ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu bu ko defee nag maa ngi lay gërëm yàlla boo dañ di ko jox dégg nga teraanga yi nii yàlla nga dem ba avion bi ma tudd sax nga jox ko jet jet privé boo xam ne moo koy moomal boppam yàlla defal te euh, te yaa ngi ci bunt bu nga koy utee ndax eh, eh, tabe dafa bokk ci melokaani yàlla yi tabaraka wa ku ko yàlla sédd rek yàlla jox na la wiraasa boo xam ne wiraasa bu rëy la ndax joxe alal yomb te gis naa ne ku ñemee ku ñemee joxe la waaw yaa sama waay yi Cheikh moom moom da ngeen a da ngeen ci lu bëree bëree bëree bëri Cheikh yaa Cheikh dama koy tooñ ma ne ngay moom daf lay tuddal yàlla ngay kontaan mu jël di la jox xaalis man xawma loo ci jublu nag pour wàccee la nga nekk yow nga dem ñun ñu nekk ci baqaaw bu mat sëkk ndax xaalis dafay wàccee nit <laughs> waaye yàlla yàlla fay la gis neen sa taxawaay ah bàyyi am sa wóor lëre la tuddee na la bés bi def nga ci da ay teraanga yu mat sëkk yàlla na yàlla yokk sa teraanga teraanga googu nag da nga ci utu sa mag yi Cheikh Mouhamed ko bi Cheikh Mouhamed xam ne am njabootu Thierno bi yëpp ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant bu baax a baax sëñ Ousmane daal kontaan neen kontaan leen ci jotaay bi kontaan leen ci itte ji nga xam ne moom la ko bàyyi du jox ak niveau bi nga xam ne moom la ko moom la ko foofu la ko àggali damay gis vidéo yi nag yi ni mu ko doon dàqee ak gëléem yi dégg nga ak gàtt yi ma ne kii daal wax dëgg yàlla man damaa bëgg damaa damaa bëgg ko bëgg lu rëy dëgg yàlla ndax Thierno dafa bëggoon lu rëy Thierno lu tuuti rek la bañoon daf ne maa bañ lu soof damaa bañ lu soof damaa bañ lu tuuti loolu la wax waaw te te alhamdulilahi bés bi jox nga gëdd bi nga xam ne moom la war a am ndax bés yi yonent bi dañ ko war a jox gëdd gi nga xam ne moom la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi am ndax bàyyi radiyallahu anhu waxoon na mag ñu ne gàmmu gi lu lu ku ci néew looy rey na na na nekk benn nag waaw man dinaa rey ay nag ba xamuma sax lim bi nu muy toll kon yéen ñëpp na ngeen roy na ngeen na ngeen ma roy ci loolu te seen ceet yi ak seen ngénte yéen a ngi ciy góorgóorlu sax di ci rey ay nag ñu tuuti ñu ngi koy def rawatina yéen kubaraaw yi kon nag bu fekkee ne sunnu soosu yaa ngi koy dundal ci sa bés bii nii di ci def lépp loo xam ne am nga ko maa ngi lay ndokkeelaat ci loolu di ñaan loolu yàlla na ko yàlla gën a yokku ci barke Baay la anhu gërëm nag mboolem koo xam ne da nga teew nga fi teewal nga Baay Amadou Camara ci politiciens yu fi ñëw politique neen sax waaye alhamdulilah maa ngi wax ci sama xalaat ma ne lii de bu fekkoon ne mën naa law ci réew mi baax na ndax démocratie ku nekk wax sa xalaat ku nekk wax ni nga gisee doon na loo xam ne lu am solo la waaw ci biir jàmm nga dajale fii ñoo xam ne bokkuñ parti bokkuñ xalaat bokkuñ gis-gis ñu ànd waxtaan dégluwante amul benn draillement bu fi am loolu moom maa ngi ñaan ci barke guddi gii nii loolu yàlla ko yàlla ko yàlla lawal ci Sénégal ñëpp bëggante te xam ne réew mee ñu tax a jóg kon réew mee ñu tax a jóg waruñoo yàq réew mi waruñoo xuloo waruñoo bàyyante waruñoo meroo waruñoo bañante dégg ci loolu waaye timit na lépp àggu te tegu ci dëgg waaye tegu ci maandute ku nekk lay sa cër dégg nga ñu jox la ko loolu bu amee rek incha allah jàmm dina am te loolu wax da wax dëgg yàlla ci jàmm leen <laughs> doon waxtaanee ci gàmmu gi muy thème général bi te loolu feeñ na fi ci gan yi nga xam ne ñëw na fi wane na tamit ne euh, Baye Amadou Camara ñëpp lay jëflanteek dégg nga te ku nekk jox na la sa wàccuwaay ku nekk jox na la sa cër loolu lu am solo la ci Euh, ab taalibe muy dunde noonu kon yal yàlla fay ñëpp mboolem ku sonn ci bés bi ñi gis naa mboolem waa Miftaaxul Wusul nag ci bàyyi ko ci gox yu nekk ca Casamance ba ca Ndar Mbuur Kawlax fu nekk dégg nga de bàyyi ko neen fa ñëw fa ndax néew na ngay dox ci réew mi fii te doo gis li kul Cheikh Ousmane nii li jaasaal muy liggéey liggéey bu rafet ba ca yi Mauritanie barki démb rek daje naa fa ak euh, taalibe yi yoo xam ne ci moom leen jokk euh, seen lijaasaam leen amee ña nga ca Nouakchott di liggéey te la ma ci gën a neex mbooleem taalibe Cerno ya fa nekk ña nga nekk def benn bloc foofu la wasifa ci Maodo waaye ñoom ñëpp ñu ñëw ku nekk feeñu ma eh, na ma kii na ma sëñ Ousmane mooy sama sëriñ mooma lijaasaal maa ngi fi di liggéey wax dëgg yàlla ñu ngay liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la ñooñu ñëpp nag teew leen ci gàmmu gi ndax euh, Amadou Camara yaakaar naa xariti ñëpp la soppee ñëpp la ndax dafa bëgg ki nga xam ne mooy borom Miftaaxul Wusuul muy sëñ Ousmane moo tax ñëpp ci bëgg gi mu bëgg sëñ Ousmane moom leen moom leen ko bëggee kon sëñ yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla wéral la njabootu Cerno bi yëpp ñu ngi gërëm nag bu baax sëñ Dramé mi nga xam ne lépp da dem moom la sëñ Dramé mu Cerno sëñ Dramé suñ doomi bàyyi sëñ Dramé moo xam ne bu ñu waxee ci moom ci suñ bu ñu waxee ci moom dafa mel ni ci suñ bopp la ñuy wax ndax keroog ba Cerno génnee àddina keroog la gën a tënkaat boppam da nga ci kër gi fonk njaboot gi def ku ci gën a tuuti bët bu mu lay xoolee moom lay xoolee ku gën a mag te loolu lu jafe la ñun ñëpp ku nekk ci ñun mën nañ ko mën mën mën nañ ko service loo waxtu wii nii wóor na ma ne Aliou Tamasin nii mi nga xam ne mooy caati Thierno bu ko woon téléphone na ko damaa bëggoon nga gunge ma place sangam du dem nelaw ji day dem ànd ak moom ànd ak fu mu toll ci mage ak ci cër ak ci taxawaay kon sëñ Dramé ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na yàlla a di seddal sa te xam naa ne lii moom mooy guddal sa fan ndax kër gi rek moo la ñor te wax dëgg yàlla kër gaa ngi kër gaa ngi yokk bu baax a baax kii de xaw ma fu ko cerno eh, ndax ñoon denc ko waaye ba mu ko ba mu ko ba mu ko feeñalee ci sa buntu fàkk foog naa ne yokk na lu bëree bëri da koo nëbboon nag nëbbu na ko mu nekk ci oto yooyu nekk di nangam di nangam li mel ni kuy for ay mbalit ak kaza wa kaza nekkate moom am na ay mbalit yu muy su for mbalit yam foroon yëpp def na leen ñuy urus waaw yokk na bu baax a baax dégg nga kër Cheikh dem kon Dramé sëñ Dramé ñu ngi lay gërëm ci loolu ñu ngi lay ñaanal yàlla gudd fan ak wér gi yaram ci barke bàyyi Ñas radiyallaahu anhu maa ngi nuyu bu baax a baax Zeyna Abidin nga xam ne moom it suñ euh, nijaay la waaye suñ xarit la xariti kër gi la ndax jotaay yu bëree bëri bëri ci jotaay yi aju ci kër Cerno da ngay gis ne dafay teew dund koog ñun kon Zeyna Abidin ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay sant bu baax ku fi teew daal ñun nga fi teewal tey ñun ñëpp kontaan neen kontaan naa tamit ci waa jaxaay taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko ci Baye Amadou Camara bi waaw ndax ñoom ñëpp jàpp ne jàpp leen ko ñu ko mat bàyyi def leen ko muy doom ñi ko mat déngare doom def leen ko muy seen bàyyi ñi ko mat jarbaat def leen ko muy seen jarbaat jàpp bés bi muy seen bés taaral bés bi bu baax a baax a baax ndax nopp amul kubéer nopp amul kubéer te suñ bët dafa nekk fii suñ nopp dafa nekk fii nii lu fi nekk ci mbaax dañ fi dañ ciy bég lu fi nekk ci safaan tamit loola suñ daf daf daf ñuy naqari te gis neen engagement bi nga xam ne jaxaay jël na ko mënoon na sax ngeen wax ne dafay moom kat soxlaay jaxaay rek moo ko tax a jóg ah xàmmewu ci kenn ñëpp lay jëflante jëflante bu rafet kon bësam ñun ñëpp ñoo ci war a taxaw waaye duy demee noonu di gis nit kuy sonn ci nit ñi te nit ñi duñ ko delloo dégg nga de euh, teraanga bi nga xam ne mu ngi koy def ci ci ci ñoom waaye yéen jàpp ngeen ne Baye Amadou Camara seen Baye Amadou Camara daayira bi seen dayre la dégg nga xadara bi seen xadara la Baye seen Baye Ousmane la amul murit amul tijaan tijaan bu aju ci Tiwaawan wala dégg nga xaadir wala lenn ñëpp jël engagement autorités yi politiciens yi ñi bokk parti ak ñi bokkul parti ñëpp taxaw wax dëgg yàlla siggil ngeen ko waaye ñu ni tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ndax euh, lu ngeen ko defal rek ñun ngeen ko defal ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla fay leen li ngeen tawat ci jaxaay yëpp nag yàlla na ko yàlla yàlla ko yàlla saafara hôpital bi yàlla na àgg yàlla na fi ay hôpital yu mag nekk fi yàlla na jaxaay nekk ci nekk bokk ci barab yi gën a taaru ci Dakar barab yi gën a développé ci dakaar yàlla na ko yàlla def bi jaay nabi sallallahu alayhi wa sallam seen doom jii daal moom bàyyi moo leen ko sédd bàyyi moo leen ko sédd te bàyyi nag moom ak séddam teraanga rek lay doon yokkute rek lay doon kon la yàlla na yàlla yokku jaxaay mu jëm ca kaw ci barke Baay Ñas radiyallaahu anhu ñu ngi gërëm ñu ngi sant bu baax a baax sant suñu mboolem rakk yi nga xam ne teew neen dundal dégg nga bés bii nii ñoom ñëpp tamit ñu mu nekk bés boo xam ne dañ koo fuglu ndax sëñ Ousmane ñu bari ci ñoom amoon leen ngant waaye ñëpp bàyyi dagg neen seen ngant yi dégg nga ñëw Cheikh Oumar mi ngi ko tuddee tey ay jotaay yu bari dem na fa waaye gis naa ni mu joxee importance dégg nga bés bi wax na ma ci benn jotaay na ma man de maa ngi dem pour waajale ji dama bëgg a teel a dem dégg ci jotaay bi ñëw ak mboolem ay soxnaam mbooleem ay ak ay taalibeem ñëw dundal bés bii nii moom ak mboolem ay rakkam Cheikh Paha ñoom nit yi dem barki démb leen bàyyeekoo Mauritanie Seydi Arabi Seydi Ali Harazimi Seydi Ali Tamasini ba ci Ceerno Seydi Chouara ñëpp daal amul ba Cheikh Tidiane mi nga xam ne tey dafa bàyyi daara ja fële am kum ko dénk. ñëw da nga teew fii nii wax dëgg yàlla njabooti Thierno gi kenn desut jigéen ñaa ngi nii Seyda Umul Banina dem Seyda Aïcha dem Seyda Waxra ñoom ñëpp da nga ñu teew ay suñu soxna teew xayaat euh, yi ni ko ni ko ni ko sang bi di wooyee xayaat yi euh, nga soxna Batouri jàlloo di sama soxna moom itamit dégg nga teew Cheikh Ibrahima dem mboolem njaboot gi lépp ñëw dégg nga de ci ci ci bés bii ni ñoom itamit maa ngi la ñuy gërëm maa ngi la ñuy sant bu baax a baax di leen ñaanal yàlla di sàkku tamit ñu ñaanal leen yàlla yàlla àggali seen mébéti bàyyi ci ñoom yàlla yokk seen teraanga yàlla dimbale leen dimbale gu yaatoo yaatu yaatu ci barke bàyyi sa radiyallahu anhu xam naa gàmm gi dama koy lebba ba déwén dinaa ah boo pour manqué waaye daal dama koy lebba ba déwén bu déwén ne daal moom dinaa dineen gàmm waaw incha allah taala te bu dee déwénee nag yàlla yàlla defal ñu lu ëpp lu ñu jox ren benn oto nga joxe bu déwénee yàlla nga ko jox ñetti oto ci barke Baar de Laano ci ay modèles yu bees tàq waaw te fekk nag fekk ba nga koy def yaa ngi am ay oto yu bëree bare bëri yoo xam ne tamit dégg nga de da koy am yàlla mën na yàlla la yàlla defal loolu ci barke Baar de Laano allahumma salli ala sayyidina wa sallam alhamdulillah barakallah dëgg yàlla gàmm nañ de gàmm nañ de odu odu amiin jàngal ñu rabbal ibaadi اقرأ بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin arrahmani irrahim maliki yawm iddin iyaka nacbudu wa iyaka nastain اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربنا انت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضاعة وحرج يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضاعة وحرج ودر علينا من حماك الأمنع سرادقا من حل فيه يمنعي اللهم حسنا بعينك التي لا تنام واطلبنا في كنفك الذي لا يرام وجعلنا في جوارك الذي لا يخفى ولا يضام اللهم ندرأ بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا تعود بالذات وبالصفات فكن لنا في سائر الحالات فبالقلوب أعلى الإيمان واتهدنا لعمل الإحسان وانظر إلينا وانصر الذينا أد حقوقنا وأد دينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاز عنا كل من قد أحسنا إلينا من ربك إذا أحسنا بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قد قضي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمنا صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشغل والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ربنا أرسل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ربنا أنزل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم اللهم صل على وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant Yàlla ñun lay digil kasalaam sidi baram